daara bi bu ñu ko defee nii dafa fekk lii moo war a am parce que ñun bi ñu jàng ki suuf lañu ñu toogoon matt la doon taal kii si guddi euh, alhamdulilah rabbil alamin bi adduna bi bu doxee ba tey lu ñu am yëpp ki adduna alxuraan moo ñu ko may kon alxuraan boobu war war nañ ko jëmmal bu ñu deful woon lii tey ñu nekk suñu gannaaw ñoom duñu gis fu ñu jëm suba te comme adduna bi dafa am ay changement moo tax it faut ñu obligé def lu mel ni ndax ñiy jàng sax ñu gën a bugg ci li ñuy def moo tax moo ñu pousse pour ñu war a mën a def lii te doomu aadama boo koy defar xel mi ngay defar te booy jàngal doomu aadama moom sa jikko li ngay def lay def suba te nag moo tax nag ñuy góorgóorlu bu ñu mënee ak bu ñu mënul yëpp ñu jéem a def loo xam ni ndax suba xale dinañu xam fu ñu jëm ci wàllu yar moo indi loolu ñaareel bi li nga wax ci wàllu yëngu-yëngu àdduna bi bi àdduna bi sosoo ba tey bi àdduna bi sosoo ba tey àdduna bi yàllaa ko yore kenn yoru ko àdduna tey doomu aadama yi ñoo fa nekk ni tey di doxal waaye balaa doomu aadama yi ñëw malaayka yi ñoo fi nekkoon bi jinne yi ñëw jinne yi ak seytaan ñoo nekkoon ci biir àdduna bi bi aadama ñëwee la ñoom ñu poos waaye boo xoolee jamono yonent yi ba tey kan moo fi des kan moo fi nekk ñi fi jaarul nekk président anañu ñi fi jaarul nekk ministre anañu ñi fi jaarul nekk député anañu kon kenn ku ci nekk booy wuti makaama da nga xool li ngay wuti naka la suba parce que réew mi kenn moomu ko ki ñu ko jox dañu la koy dënk dañu la koy dënk bu subaa boo fa nekkul ñu jox ko keneen kon léegi nañu ko rafetal nañu ko defar kuy wuti na defar ku am na defar nga xam ne lépp doomu aadama def moom moo koy dund suba loolu de lay dénkaane réew mi kenn moomu ko yàllaa ko moom ku ñu ko jox dañu ko koy dënk yàlla dafa ne innal quwwata lillahi jamia doole bi yëpp man yàlla man maa ko yore mais daf koy denkaane léegi bu la ko denkaanee loolu da def ndimbal ñu def ki lu rafet ndenkaane boobu bari na façon lii doole la lay jox loo bëgg ñu def ko lii alal la lay jox loo bëgg sa alal moo la koy ñu defal la ko lii xel la lay jox yàlla dafa jox xel xel bi ngay utiliser pour defar xel bi ngay utiliser pour yàq léegi nag doole boobu ku ku ko ko yàlla jox rek war nga xam ne li la yàlla jox joxu la ko pour nga lor ki ay doomu aadama dafa la ko joxoo rek pour nga dimbal ki ay doomu adama te nag lépp lu jëm ki ci na moom nañu ko moytu lu ñu lee dënk suba dañuy suba suba da nga fiy bàyyi suba ba nga gën a góorgóorlu ki li ñu la ki li ñu la dénk jërëjëf